atelier bi ni ñu ko gisee dañ koy rafetlu ndax suñu xel dal na bu baax a baax a baax ndax ñi mu dajale mooy xale yoo xamante ni am nañu xariñ ba ca war pour mën a liggéey ci suuf si maanaam wàllum mbay waaye bi ñu ko amee pare am nañ ñu leen gunge mooy les partenaires yi Kolto mi ngi fi mais les ministères surtout le ministère de l'agriculture Sénégal qui a mis en place mu teg benn programme boo xam ne def ne man kat ceeb dinaa ko suqali si dëkk bi mais ceeb pour ñu mën ko suqali il faut ñu am ñoo xam ne jàng nañ mbayum ceeb te xale yi jàng nañ ko je pense que bu ñu leen joxee loo xamante ni dina leen mën a tax ñu mën a weccante xalaat kenn ku si nekk fa nga jógee ak sa réew doxalin yi mën na wuutee waaye ñun ñëpp lu ñuy wut mooy ceeb bu bari rek loolu mooy finalité mooy résultat bi naka la ñuy amee ceeb bu baax te bari te xale yi liggéey ko ba pare wut nag ñoo xamante ni ñoo leen di gunge ci liggéey boobu mu bañ a nekk kenn nit rek di bay pour jëriñu moom rek mais mu nekk mbooloo moo xam ne dañuy dajaloo loolu la ñuy wax entrepreneuriat ñoom à partir li ñu xam ak li ñu man ñu fexe ba liggéey am ci waaye à partir de li ñu xam ak li ñu mën ñu fexe aussi ba koom-koom yokk ñaar yooyu bu ñu ko boolee waaye nag ci kaw loolu il faut ñu yombalal leen suuf si naka la ñuy def ba xale yi jot ci suuf si ndaxte suuf diñ ko daan joxe surtout ci Sénégal dañuy jàpp ni kii li fi njaboot gi rek moom moo war a am suuf kooku nag mooy yóbbaale doom yi waaye toll nañ jamono boo xamante ni kii liif njaboot gi amatul kàttan gu mu liggéeyee xale bi am kàttan gi mu liggéeyee nañ ko bàyyi mu jot ci suuf si ba mën a liggéey suuf si jëriñ askan wi waaye jëriñ njabootam aussi parce que loolu moo am solo te loolu rek mooy régler maanaam problème mu xëy bi ñu am fii ci Sénégal ndaxte ci àll bi liggéeyee nga fa waaye nag est-ce que xale yi jox nañ leen lu ñu war a liggéey est-ce gunge nañ leen ba bu ñu liggéeyee la ñu nit ñi mën cee jot est-ce gunge nañ leen ci lu bare bëri bëri loolu moo jar a kon atelier bi loolu mooy jariñ li te foofu la ñuy santé ñi nga xamante ni ñoo ko organisé muy récolto et FAO ak nga suuf si état bu ñu koy joxe aussi duñ ko jox koo xam ne bokkul ci réew mi duñ ko jox jàmbur maanaam ki nga xam ne dafa ñëw am investissement bu bëgg def

ci ki nga investir pour génne xaalis bu bari ci dëkk maintenant bu investissement am jeexee wala la mu Sénégal jeex suuf si da ko fi bàyyi donc loolu la nit ñi xamul am na suuf yoo ña fa nekk amuñu ko ba mu jur njariñ ñu est-ce que loolu mooy li ci Sénégal gën ci population wala ñu jox ko koo xam ne ko ñu suuf soosu bu ko liggéeyee mu jur njariñ ci dëkk bi génne ay liggéey ci dëkk bi foog naa ni loolu la war a réfléchir bu ñu jàpp ne ki jël suuf si rek dañ koy caxat-caxate yóbbu ko jaay ko déedéet toll nañ jamono yoo xam ne le système est bien encadré ba nit mënatu fee jël suuf dem jaay ko dagg ko jaay ko nu mu la neexee daal di ñibbi fa nga dëkk mënta nekk la preuve condition yi lay joxee suuf dafa leer nañ am na loo xam ne boo ko ci liggéeyul suuf sa dañ koy jëlaat jox ko keneen mu liggéey ko loolu la ñu war a comprendre waaye sama suuf sama suuf bu yàggee sa suuf soosu te mënoo ca dara du jural Sénégal njariñ te du jural kenn njariñ nañu seet ñi mën a liggéey suuf si lan la ñu mën a indil Sénégal lan la mën a yokk ci koom-koom lan la war a mën a yokk ci liggéey xëy ci wàllu xëy mais ñu waxtaan ak ñoom parce que Sénégal it buy joxe suuf du ko joxe n'importe comment am na nu ñu ko encadré parce que on a des techniciens dans le domaine du foncier danañ ko encadré ba suuf si ca loxo yam war a dem lay dem buñ ca paree ñu delloo ko fa mu nekk ne nit ñi xel te xam ne projet buñ ko bëggee développement buñ ko bëggee il faut projet am. projet nag li may wax tout le temps rek bi ma ñëwee fi ba léegi nee naa leen projet Sénégal projet du nekk ci jaww ji ak ci diggante jaww ji ak suuf si mënul ne ci asamaan projet ci suuf lay tegu suuf la ñu soxla moo xam dañuy tabax ay usine moo xam dañuy bay lu mu mën a doon suuf la ñu soxla mais suuf sa fa mu nekk lañ koy dem jëli fexe nag ba ñu dëkk foofu ca gox boobu ëppale ca njariñ loolu mooy sunu yitte. mais du ñu jël mukk suuf di ko jox ku fi dëkkul wala di ko jaay ñu ci def lu loolu Sénégal jóge nañ ci encadré nañ ko te li ci président de la république wax dafa leer nañ te ñun ñëpp noonu la ñuy doxee amatul multinational amatul dara li ñu bëgg mooy suuf si jur njariñ pour Sénégalais yi